asalaamaaleykum mbokk yi seetaan 24actu.com dellusiwaat nañ suñu émission jotaayu yi jotaayu yi nag bu ngeen ko man li ñuy def allah bi la yoon doxantu ba fii nga xam ne moo di Papa Mbedd Mbaye daal fiy fekk ñi ay waa daal di dalal ki nga xam gis ngeen nag installé nañ tamayeeg yëpp yoo xam si ne dafay dundal jotaayu ndaanaan bi ndax ngeen ne jotaayu ndaanaan wax nañ ko saa ne waaye tey jii xam ne ay ndaanaan lañ jàkkaarloo daana ñu seet si ñi nga xam ne ñoo si suñuy daana wër yëngoo coow li ko waxee woon nag waa ñi nga xam se ne ñoo di ngi nii nag ñi nga xam ne ñoo di waa kër Papam ñoom lañ dalal ñu daal di gis nga xam ne moo di Aline Baye daal di jàkkaarloo ñi nga xam ne ñoo di ay rakkab rek ñu daal di fas yéene ànd ñoom nag daal leen di nuyu ba pare ñi soog a dugg suñu émission salaamaaleykum. waaw maaleykum salaam. waaw 24actu ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di ziare bu baax. waaw ñoo ngeen fi ngeen war a ñëw. parce que yaakaar naa ne Mbàkke moom boo fi ñëwee rek dal kër Alaaji Mbedd Mbaay ñëw nga fi nga war a ñëw ñëw nga kër Ndaanaan. waaw waaye ji daal di bàyyi daal di nuyu askan wi nga xam ne ñoo lay waaw waaw rek danoo bëgg euh, tëgg junjung rek. bu defee Amadou Xaleta moo moo jiite noonu nekk ci kanam mu bëgg rek ngeen jël ko mu am nu mu def rek bu ko defee ñëpp ñëpp ñu nuyoo ko waa àdduna rek. waaw ki ngeen di bëgg a gis nag mooy Amadou gis ngeen ko mooy muy kenn tamit ci kenn nga xam se mooy kër waa Papa Mbedd Mbaay ñu daal koy bàyyi moom mu daal di nuyoo. waaw asalaamaaleykum waa télé bi ñu leen di di leen nuyu di leen sant bu ngeen ñëwee fii nag ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw ndax fii mooy kër Mbedd Mbaay yaakaar naa ne Mbàkke kenn du ko laajte. kon boo leen ñëwee ñëw ngeen kër ngéwal te ngéwal yëngu na te bu ngéwal yëngu coow day bari waaw waaw. ñu daal di bàyyi ngeen nuyoo askan wi. ngeen ko gisee woon nag xam ngeen ne li ma leen waxoon ndaanaan la ñuy jàkkaar lool te xam ngeen ne li ngeen fi gis xam ngeen ne ay ndaanaan a koy def ba tax na tamit ñu daal di commencé li nga xam si ne mooy suñu waxtaan ñu euh, gi ñu nekk ku leen fi tudd ràññeeku ngeen fi lool macha allah ndax man seen métier aar bi nag moom nan la leen dikkee da ngeen ko doon ndax ku ne xam ne ne doomi géwél ngeen waaw loolu dëgg la parce que yaakaar naa ne Sénégal sax laay wax Sénégal ku nu fi xamul amul ñun waa kër Mbedd Mbaye yàlla dogal na sunu baay amoon na tur woo xam ne nii tur woo sax ñun amagut ko gën ñu gën ñoo xam ne ci waa kër Mbedd mbaay man sama ak samay rakk fi ne waa chaque jour sama turu papa ci laay dox ba léegi parce que bu ba ma dama naan ñun la waa kër Mbedd Mbaye parce que day am loo xam ne du hasard parce que tamit boo ànd ak say rak boo leen ne jaar leen fii ñu jaar fi jëlul ngay jël sa turu bopp di xëcc. li ma mel mooy ñun ñëpp a far moo tax may waral di wax ñun la waa Kër Mbedd Mbaye parce que boo ma woowee laaj may damay la ñun la waa Kër Mbedd rek parce que ànd mooy doole mbooloo mooy doole te yaakaar naa dëkk bi ku fi dugg rek xam nga waa Kër Mbedd Mbaye waaw loolu la ñu wax de mbooloo mooy doole. waaw léegi ku fi ñëw di nga xam ne waa kër mbedd mbaay la ba tax aar bi tamit ndax yéen am ngeen euh, single wala ba album bu ngeen mas a génnee. waaw euh, ñun di yëngu ci ay single defaguma album nag waaye ñu ngi def ay single. Mhm. waaw sama frère boobu ñuy wax Dame Mbaye. Mhm. woykat la boo xam ne nit ñëpp ko xam Sénégal. Mhm. yaakaar naa mu ngi waajal programme boo xam ne le deux sax waaw bii ñu jëm. ñu koy waajal. war a ànd ak moom dooleel ko parce que ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay waaw. waaw kon single bi daal jotagul a génn da ngeen nekk nii rek. waaw ñu ngi ci waaw am na yu génn mais am na yoo xam ne nii moo des. des waaw am na yu des. mais am na yu génn parce que tamit doom buur géwal lu mu génn la des moo ëpp. te yaakaar naa ni fii ñu dëkk di Mbàkke Bawol ñëpp ñu xam ràññee ñu ku ci xewle boo wowul waa kër mbedd ma day day mel ni woo woo loolu yàlla moo koy def. waaw ndax am ngeen orchestre waaw ñun moom am orchestre lépp lépp a ngi ci biir xam nga dangeen noo bett sax waaye bu fekkoon tel na noonu yëg bagage yi. ba ba ba làng affaire yi ba woo suñuy doomu aadama ñëpp ñëw teew. bu boobaa da xam ne lépp dëgg la waaye yoon du yem ci benn. yéen maanaam yéen ngeen di jëfandikoo yit kese la nii wala. waaw parce que lii moom xam nga ni am ndënd la ndënd. Mhm. lii ndënd la lii mooy sabar. ndënd ak sabar nag bu la neexee boo ko boole lépp ni ndënd waaye lii moo tax ñu naan ndënd lii moo tax ñu naan sabar mooy ndeer bi wow mooy sabar mhm. bi nga xam ne day tooy uh-huh. kooku mooy am ndënd uh-huh. ñu gën ko xam ci cóol am na piano yaa ngi ci biir waaye xam nga comme li ma la rek moo ci ne batterie orchestre yaa ngi ci biir uh-huh. lépp ngi ci biir waaye bis bu ñu demee ba yàlla dogal ngeen fi ñëwaat boobaa dañ koy def benn sabar gu mag rek ma yëgal ñëpp ñu teew bu defee lépp mën a génn. wax nga dëgg noonu ndax aar bi de moom gis nañ ne macha allah ndax yéen a ngi ciy génn tamit génn bu sore wala seen génn fii rek la yam. non dañuy génn dañuy jeu ji. Europe rek lañ ci demagul te ñu ngi ciy dem. waaw. kon daal génn danañ ci dem. génn bi sori daal. waaw ñu ngi ciy génn parce que yaakaar naa ne macha allah sama rak sama benn rak fan la rek nekkoon ci Afrique antique ñu ko gën koo xam ci Fallou Mbaye euh, fan yële la ne Allemagne ci la tukki ànd ak Wally Seck ak Africa Ndigal yaakaar naa ne mi ngi Allemagne instant bi waaw ah, sa rakk la fi ah, waaw. ñu ngi ciy togg ñu ngi ciy togg mhm. waaye comme yaakaar naa ne comme koor gi dafa jege si mhm. euh, danuy bàyyi ba nu waree rek bu ko defee loolu liñ ciy répété bu ci kàttanu yàlla buñ koree mhm. ñëpp leen dégg singalu sabar boo xam ne kenn lépp ceebu jën ak yaabanda rek faas ak lépp ngi ci biir. spécial sabar daal la lépp sabar la doon. waaw maanaam am na ñu ciy jàpp mais xam nga àdduna ñëpp yemoon. parce que tamit euh, lu toll ni waa Kër Mbedd Mbaay wala ñu toll ni yeneen géwél yu fi ne parce que ñun dong newuñ fi euh, yoon defoon na ni euh, autorités yi nekk ci dëkk bi du ñu mën di jàppale di ñu dooleel. ñu am ay saal yoo xam ne buñ xewlee sax duñ fay. normalement loolu war nañ ko am. Mhm. xëy na nag gimmi jamono loolu dana ñëw. Mhm. waaye amagun ko nag. waaye jotagul a daal. waaw exceegul. Ah, waaw am na saal yu fi ne nag boo fayee da nga jéem. waaw man yaakaar naa ne chaque jour li may wax <laughs> li may def rek wax samay rak. parce que yaakaar naa ne dem fu ñu la wooweewul bu ñu la fa xaañee yaa tooñ te it aar bi dafa doon loo xam ne nii jiir ñu ci bari sax pour am seen i kayit ñu yomb dañ naan artiste la kon aar bi nu yomb ñun buñ ko xamul jiir ñi sax xam nañ ko li may digal samay rakk nag mooy ku ci am xew ñu woo la demal nga joué ko ci full ak fayda sañcalu rafet boo paree dem bind si ndànk parce aar booy yi mën nañ cee doon lu ne ëllëg. parce que Wally Seck mii àdduna lay war di jouer fu ne te daa gëm boppam. Uh-huh. te booy yi fi nekk léegi ñëpp a mën a woy dégg nga njóogu mi doon woy léegi sama rakk la. Ah, sa la. waaw sax du damay damay faral di ko wax ne ko yow euh, euh, aar mën nga cee dem fu ne. waaw sóoraaleen ni mën nga cee am leneen ëllëg téye ko sa loxo. di def musique parce que day woy waaw ñu gis na nag yéen tamit li ma leen waxoon léegi comme que ay doomi géwél ngeen te yéen xam ngeen ne ku leen gis xam ngeen ne du ngeen foowee aar euh, te bari na métier bi ñu xam seen dañ koy foowee ndax euh, loolu moo xam ne est looy wax ci ñooñu daal laa leen wax waaw ñi may li may wax ci ñooñu mooy fulla ak fayda mooy yóbbu nit fu sori noo munte mel amoo ci fulla amoo ci fayda doo ci sori parce que lii yaakaar naa ni ci leen judd ci leen nàmp moom la ñu yaree lu am ci leen ko amee ci leen am suñuy soxna ci leen am suñuy doom ci la ñuy def joxe suñu dépasse kon dañ koy fonk lool. waaw léegi ma gis ne aar bi tamit lay laaj ci lenn comme que yéen ci seen papa ngeen ko doon dee a defoon daan ànd ak seen papa euh, ba say rakk tey ji ñu mën a ànd ak yow wala da ngeen a judd nii rek. waaw maanaam aar bi nag yàgg naa ci ànd sama papa man damaa jund rek ànd sama papa di jouer aar booba xale laa daanaka mu mu man ko lool di ci dem fu ne. fu mu jëm yóbbaale ma man tamit bu yàlla dogalee ma xaw a gimmi tuuti fu ma jëm fu ma sama papa ma ànd ak samay rek ànd ak ñoom. parce que bari na loo xam ne lu ma joué lu bari loo xam ne sax mën naa ko waaye Amadou xale temps laay woo mu jiite. parce que tamit ëllëg mën ngaa génn tukki ëllëg mën ngaa dee te yooyu yëpp day ñëw bu yàlla dogalee ngay bàyyi ñoom ñuy def boo fi nekkul boo tukkee ñoom bu ñu yow man doo ca feeñ bu Aliou ñëwul du ca feeñ. soo dee bu yàlla dogalee nekkatoo fi ñoom bu ñuy def doo ca feeñ. moo tax aar da nga koy def anniversaire rek ñëpp ku ci nekk di ci gis sa bopp. waaw wax nga dëgg de macha allah waaye li nga def tamit ñàkk ki ñaana ko man ndax dangay ngay gis ñoo xam ne tamit dañu nekk ci biir xaw a noonoonte xaw a xaw a di soxarante ci biir ñooñu tamit loo leen di wax ndax li nga waxee léegi dafa mel ne aar du lool de. waaw parce que loolu yombul li may def nii. macha allah comme daa ñoo xam ne dañ ko dañ koo ñoddi xam nga doo ko xëcc dana la koy def géwél da ngay silwi sa bëgg sa bopp wàcc sa bopp dugg ci nit ñi ñu am fun la teg nga am foo leen teg mais bu fekkee da ngay ñodd loo xam ne nii egg goo foofa loolu mooy indi ay problème te boo nekk ak sa rak chaque jour du yow rek yow yaa war a nekk ci kanam di jiite léeg-léeg ba leen ñoom ñu def nga taxaw ne jàppale ci ginnaaw xam nga bi ngeen mën naa nekk fii taxaw g mais damaa toog fële bàyyi sama rak jiite lépp benn la ñun ñun la waa kër mbedd mbaay mhm. sotti ci ak def ci la rek. waaw li nga wax léegi rek. si moom suñu borom a koy def. te defe naa ne loolu mu ngi ah, na ñoo xam ne tey jii defe nañ ne buñ génn rek siiwu ñu te gis naa bi ma dikkee li nga wax léegi moom nga def da nga ne da ngay jiital Amadou moo taxaw ci kanam ngir daal di mën a suyee ngeen kon daal nga xam ne lépp daal bu ma ko xoolee boole ngeen seen yëpp mu doon benn. boo dëgg la lépp benn la parce que tamit ñoom samay rakk lan fu ma leen yabal fa dem su ma dem leen fii dem léeg sax ma yónni leen fenn ñu joué programme ba pare ma jël def sama poche di seetlu di xool mais du ma gis kenn kaas ci wala mu def benn réagir parce que tamit sama papa ci loolu la ma doon yar léeg di ma ci noob kon ñoom comme sama papa nekk fi maa fi ne ñoom tamit dama leen yar ci loolu di leen xool di leen xool ba xam ci lu ñuy dox. nga xam ne wàllum xaalis bi ñu wax daal naan yàq na lu bari daal yàqul seen diggante dara dara. parce que ñun ñëpp benn lan ku ci nekk boo doon def dara sa moroom bu ko amee moo koy def. Mm-hmm. waa nga gis tamit ñoo xam ne ñu ngi ci biir aar bi comme ça ni ma la waxee dañu ndaanaan gi ngeen àgg yéen moom ku leen xam gis na ndaanaan ngeen am na ñoo xam ne ndaanaan gi ngeen nekk sax àgguñ ca waaye dañ cee boole tiitar boo xam ne si ak di xëcc loo xam ne si ne ànd bokkut ci aar bi de defe ah. bari na waaye li ma leen wax rek ñu wàcc seen bopp nit loo munti am ay milliards sax boo ko yoroon romb doomu aadama yi faale wala du yëg ni sax am nga milliard kon kay nit da koy lebal ker mu fay la guddi waaye du loo xam ne ni da war a taxaw rek ñoot di ko man noonu laa amee ñun Baay Faal la ñuy dund parce que bu koor gi jotee dañuy liggéeyal sëriñ bi bu sëñ bi wootee fu mu wootee dañuy dem man taalibe sëriñ Cheikh Ndigal Fall laa. ci Baay te maa ngi waaj. kon nag waa ñu ngi koy waajal bu baax di waaj yóbbu ndog yi. ñun ay Baay Faal lan àdduna amul solo. def Pastef kon yéen tamit ñu baax ngeen vraiment. parce que yéen a ngi déplacé jóge fa sori. ñëw dalal ñu defal ñu lii tamit lii wax dëgg yàlla lii yokkute la. waa loolu vraiment ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal mu doon ay télé yu mag a mag a mag. barke maam Cheikh Rafal. waaw ñu daal di bëgg tamit comme quoi def nañ suñu waxtaan ak xam naa ah, fi ma jaaree yow dinaa fi am kàddu yu ma laaj ah, kii tamit waaye tamit comme que jotaay bi jotaayu ndaanaan la te mu ngi bëgg a seetlu ñu daal bëgg ngeen daal defaat yi fi ndaanaan yi. waaw dëgg la di rafetlu rek ci li ngeen def tey di ci kontaan tamit ndax nit amul lu dul ki ko yëg te li ngeen def tey dafa rëy mhm. jëm si kër mbedd mbaay ne yéen a ngi seet si artistes yi ci biir kër gi rawatina sama sëriñ nga xam ne macha allah moom la fi yàlla teg muy xalifa xale yi Modou Mbaay du Mbaay ak Daamu Ndaw sama doom kon dama koy rafetlu te it nag def ngeen loo xam ne lu rëy la ci Mbacké ndax lii dara fayu ko di ñaan it nag yàlla weral seeni cër barkeeral liggéey bi yokk fan bi sama sëriñ bii nag xàllaak ma si Demba Góor maa ni xor ko du lambaay Demba Kumba Jaar Njaay bàyyi làmb ndaw lii dara jomb ko ah, ndax nag dafa tarbiyu papaam mu ñaanal ko yal na yàlla yokk ay leeram te képp ku nekk ci kër gi rekk dangay ñaan alaaji mbedd mbaa yal na yàlla yokk ay leeram kon nag lii ngeen def tey dara fayut lii waaye it nag moom it ku ñeme njaboot la. aar bi tamit ku man la nga man di nga gis ñuy mbubboo saw tur. Mm-hmm. Eh, seen mbub yi ba ngeen gis ñu koy mbubboo ci aar bi. an kay bari na. bari na loolu ndax yan sax da nga gis kon fi ramas wala ñu lii ñu ne kër mbedd mbaay laa dëkk te ala dëkku fi sax sa papa dafa dafa siiw lool. Uh-huh. yan sax nga gis koo xam ne dafa am problème ne kër mbedd mbaay laa dëkk. wala ngeen nga jóge nga jóge nga jóge fenn ne kër mbedd mbaay laa laajte directement fi ngay def ndax loolu sax papa ko waxal ko daan def ku ñëw ne dañ lay téye nga xam ne loolu sax papa ko daan def kon nag macha allah ba tey xam naa ne kàddu yi ngeen fi indi am na solo ñu daal ba bëgg ngeen ñuy defal yi fi ndaanaan daal daan ne der kii fi yi soxla nañ loolu namm nañ ko daal te après comme que tamit waa 24 lañ tamit du ma fàtte bala ngeen a tëj na ngeen ñu duggal ci 24 ba mu baax way yu baax laa bëgg. waaw waxal ko ci 24. waaw waaw 24 actu ci jotaayu ndaanaan ak jotaayu ndaanaan yi. kor ya daake far ya daake. su ma yendoo di leen waxtaane fa ñaawe 24 ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar gàcce seen liggéey rafet na xoolal ñoo ngi leen wayal fari yendaake fari yoo yendaake ndeysaan fu yendoo di leen waxtaane fa ñaawe xoolal waa 24 ñu ngi leen di wayal jotaay ndaanaan bi réew mi foog ñu koy wane. yàlla say basang lan say basang lan say basang waa benn gàtt a ngi leen. xoolal faale ki ñi leen di xalab ndax léeg-léeg la dab ñu bëgg laa dab bu faale ñi leen di xalab. wajataayu nda na na na na laay wa yalaay. ndeysaan. yéen a ñu seeti. ah. yéen a seeti waa Kër Mbedd Baay. waa 24 actu laay wa yal. ndeysaan waaw waaw. ma yërëm seen noon. ah. wóolu leen seen liggéey rafet na loolee. yéen a ngi jàppale artistes yi si Mbàkke Bawal xoro ya daake far wayal loolu ma yenoo di waxtaan fa ñaawe xoolal ñoo ngi leen di nuyu ñëw ngeen fi ngeen war a ñëw gàcce nga alama ñoo wayal far le ñu wàllu gëy naa waa 24 actu lay waayal jataayu ndaanaan yaa ngi waaw waaw ndaanaan yaa ngi xanaa xamuloo ni giwul dafa neex lool su xare masaana am géwël la daan jiitu ndéku bal yaa waaw cosaani wax leen ñoo doonu sunuy maam xoolal ñoo doonu sunuy maam waay ñoo doonu sunuy maam maam xam nga dafa neex ngéwël dafa riis dafa neex xalaak masin baay njewal moo neex si jàlloo yow njewal moo neex Amadou Mbaye séeri no kay yow dogoo rek jotay ndanan bi si réew bi ñoo leen di waayal ay waay ay gewal dama neex waaw waaw ay gewal dama neex doxal doxal dox waaw waaw waaw loolu mënta ñàkk